tàmbale ko ak xibaar bi nga xame ne sànq la wadd muy université Cheikh Anta Diop bu diwaan bu Ndakaaru day tëj ay buntam ràpp tàmbale ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet jàpp ñeenti fan ci weeru octobre bi di ñëw loolu nag dogal la boo xam ne assemblée de l'université moom moo ko jël ci talaata gi doon dogal boo xam ne kon euh, ñoo ngi ko jël ngir bañ mbas mi law foofee ca bërëbu jàngukaay boobu di université Cheikh ente Diop bu diwaan bu ndakaaru foofu la ñuy des ak soxna Aminata Ba bi nga xamee ne kon doxantu na foofu xool ba xam ndax étudiant yaa ngi respecté takku masque beeg déet waaye foofee lu ñu nemmeeku mooy naam ay étudiant lañu waaye ñu ci bari ci ñoom ñu sàmmoonte bu baax a baax ak takku masque yi ak li nga xamee mooy geste barrière yi ñu teewlu reportage Aminata Ba. ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndongo yi nekk di dox ci campus social bi waaye ñu bari ci ñoom takkuñu seeni masque nekk situation boo xamante ne Madiakhoumpa nekk étudiant ci master 1 ci faculté des sciences et techniques di ñaawlu moom nag muy woo naataango mi ñu gën a xam li leen war. yenn étudiants yi nekk ñu di bàyyi xel enjeu bi nga xamante ne moom moo am ci pandémie bu fekkee nit ki jàpp ne sax jeune la ba affaire mënu ko san wala yu mel noonu mais mu am na ay am na ay yu mu bàyyi yóbbulee mën na leen a sonal moom moo tax étudiants dañu war a gën a góorgóorluwaat gën a bàyyiwaat xel delloo seen xel ci seen bopp. mu xalaat ni bile bàyyeeku li ko waral mooy ñàkkub rigueur ci ci xaw a am tuuti boo nga xam te ne koy gis ci bi loolu moom mooy répercuté ci biir. pavillon di ay ndongo nekk di waxtaanee situation Covid 19 bi ci biir daara ju ji. am kaafi. gars ñoom nag ñuy dàq bépp xalaat bu jëm rekk ci ajandi cours yi ki mu yenn faculté yi ñuy def euh, ay permutation yeneen niveau yi bu ñu jàngee ba à un certain moment ñoo ñu tëj dem ñeneen ñëw surnombre bañ a am. Mouhamed Kébé di woo leen yilif ñu daal di yokk dispositif sanitaire bi. lavage yooyu noonu mën naa wax ne fonctionné wul foofu moom dañ fa seetlu sooxe. foo ñu def ay que daal lépp loo xamante ni defoon nañ ko si première ak deuxième vague ñu defaat. ci UCAD ndongo yu ñu dajeel di woo seeni naataango ñu daal di méngoog digle kër docteur ngir rek fexe bërëbu sàkkukaayu xam-xam bile bañ a doon luy lawal virus bi. Aminata Ba balaa ngay dem université da ngay am bac ba noppi bacum ren bi nag li koy organiser dan noon loo xam ne ëlëm na lool kilifa yi li ko waral moom mooy euh, cas yu Covid yi di yokk bu baax a baax ko si xalaat. mu ngi sàkku ci nguur gi mu renforcer dispositif euh, de santé bi waaye COSYDEP bëgg na tamit ñi euh, nga xamee ne moom mooy euh, ñu fexe ba organiser bac bi te du am benn jafe-jafe ñoo ngi woon ca Kaolack di xalaat ci li nga xamee ne mooy violence yi ñu nemmeeku ci biir école yi ñu dem Kaolack fekk fa suñu naataango Pape mbay Diaw. ay heure rek moo des ci ñu tàmbali li nga xamante nii moo di baccalauréat bi fii ci Sénégal waaye nag cas Covid 19 yi ñu ngi wéy di bëri ci réew mi loolu nag di njàqare ci ki nga xamante nii moo di Boubacar Dieng nekk coordonnateur régional COSYDEP bu kaw ba tax moom mi ngi woo autorité yi ñu jël ay matuwaay indi dispositif bu mat fi nga xamante nii moo de ci centre d' examen yi. waaw examen ren yi tamit comme daaw dafa tombé ak Covid bi mais alhamdulilah daaw gars yi defoon nañ examen yi ci anam yoo xam ne jafe-jafe amul woon ñuy wax ne kon disposition yi ñu jëloon daaw moom lañ war a tegaat yokk ko nag yokk ko ci wàllu mesure barrières yi ak les mesures de protection yokk masques yi yokk gel yi gën a également ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi enseignants yi yi ak élèves texte bi lii la laaj comme ça yàlla muccal ñu si ñu def suñu examen yi ci jàmm. COSYDEP di naqarlu nga xamante ni nemmeeku wan nañ ko ci école yi Boubacar Dieng nag te xam la ne loolu nag li ko waral ñu bëri am nañ ci part de responsabilité. dafa am fitna yu bëri yoo xam ne dafay judd ci école yooyu li ko waral nag bëri na liñ ciy njëkk a wax mooy kër gi nga xam ne fala xale bi jógee di jàngi am na ci responsabilité ndaxte ca kër ga lañ ko war a tàmbalee yar mais jàngalekat bi aussi. am na ci wàll ndax li ñu seetlu mooy dafa am benn familiarité boo xam ne c'est assez douteux bu am entre jàngalekat ak élève ba tax na li nga xam ne mooy mit bi amoon diggante jàngalekat élève dafay daanu te mit boobu bu daanoo élève bi dafay yàpp jàngalekanam ba ñemee ko ba lu nekk mun na ko ko wax wala mu def ko ko COSYDEP bu kaw Kaolack daal di dajale woon enseignants yu nekk ci fukk ak ñaari école ci région bi ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamante nii élèves yi yiy dund ak laa ñu ngi koy am ci école yi ñu xool na koy saafaraa